moo fay naa la. waa sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ se ab Sakor mu sëñ Cheikh Fall Ngunda di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool di ñaanal sëñ am ni Modou Menda mi xalifa généralu Baye Fall yi mu yàgg suñu kanam di ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yëpp ñu yàgg Sénégal. tey da nga ñëw lan moo waral sa ñëw. waaw tey sama teewaay mooy 100 pour cent Thiès bi moo jub parce que ñun ñëpp dañoo dajaloo doon ñëw pour soutenir Boy Diakhao avant ñuy egsi nag lañ fekk bu bëre ba yàlla may ko ndam quoi ñuy kontaan ci loolu trop di ko féliciter di ko wax yàlla na ko ndam li jik waaw. àdduna bi yëpp li ñuy laaj lan mooy sa problème Laye Gothé xale nekk si yoon su ma juumul yaa sa parcours mais lan mooy problème mu Laye Gothé. waaw man 11 combats laa def 8 victoire 2 défaites benn match nul damaa tegale daan mbay guy gi teg ci tonnerre 2 mbay guy gi bu bata jon ci 30 secondes laa ko ñu indil ma daa Thiès ma daan ko bëreeg ay Ousmane Gandigal kon booy suñ ma jëlul dañ ma ragal quoi amul fenn fuñ ko teg fu ragal yaa ngi dégg gis nga mais teguñu ko ci palmarès su ma leen bañul ñoom waruñu bañ nan ñëw ñu bëre Jackson nag maa ngi ko dégg muy lancé défi grand bi billaay wallaay taalaay maa ko man maa ko ëpp doole dox nañ suñ combat trois fois mu bañ billaahi dox nañ suñ combat ñetti yoon mu bañ na ñëw ñu bëre ma duma ko daan ko maa ko man maa ko ëpp doole billaahi samay côté day taamu ay adversaire am na adversaire yoo xam te ne dañ la taamu ndax na structure bu la seet si pour Talfa yow yaa bañ Talfa. non Talfa du ma bëree ak moom Talfa bokkuñu ay catégorie man ak moom yaa ngi dégg gis nga ñi ma bëreel Talfa bëriwul ak ñoom nañ ma jox ay Jackson ay ñàkk jariñu yaa ngi may dégg caatu yoof jël na avance bi dem ba ci biir mu delloo ko man ñooñu laa war a bëreel mais du ay Talfa mu bëri ci démb mi waay sama combat ak laay Pythagore Sidi Diakhaté sori na ci waaw ci des bëriwul maa ngi ñaan mu taxaw quoi maag laay Pythagore bu Rock Énergie waaw. laay dama lay ñaanal wér di ñaanal sa bopp wér di ñaan combat bi xam nga li ma lay expliqué dernier réglage moo ci des combat bi taxaw ma duma la daan la li ma mer lépp yow laa koy sip yow laay billaay walaay. Euh, am yooyu nag de nga te tamit yaa ngi bu neex la combat bu neex la. ñoom ñaar ñëpp ku ne mun na daan sa morom mais combat bi soo amee rythme su amee rythme bëre amul amul amul amul bëre bu am bu kenn jafandul fenn ñuy bëre rek ci xandaalu Sa Thiès moo paatu mais bu fekkee bëre bi rythme bi dafa baissé ñuy bëre ñoom ñaar ku ne jàpp sa ngemb morom ñuy bëre Reug Reug moo paatu loolu daal laa la ci ñamal jeex na jaajëf faaw